vidéo Lomotif yi ñu naan ay Adiouza ak audio yi ngeen xamante ne envoyé na ko ak benn xaritam ma leen di xamal ni Adiouza nit ku intègre la Adiouza nit ku am pudeur la Adiouza nit ku yaru la kenn mësu ko dégg ci problème kenn mësu ko dégg ci wax waaye bu fekkee audio yooyu ñiy wax ak vidéo yi am na nañu jàpp ni erreur la te erreur nag nit du ci mun dara juumte nit du ci mën dara waaye man fu ma bëggoon ñëwee rek mooy nit ñi léegi dañoo dem ba amatuñu sutura nit ñi dañoo dem ba yàqante daf leen yomb nit ñi dañoo def dem ba nga xamante ne def lu bon daf leen yomb te jombuñu ko da ngay am sa xarit wóolu ko mu génn yàq la nga am sa mag wala sa rak mu génn yàqu la bu ñu demee ba sa yaay wala sa papa mun laa yàq ñu xam ne réew mi jàmm amatu fi te li ñuy def nii kenn xamul lal la mu nañ ne àdduna bi mi ngi tukki te yëguñu ko àdduna bi mu ngi jeex te bàyyiwuñ ci xel nit koo xamante ne lum xamal moroomam lu bon yàqamti na wax am wala coow ba mu génne ko wili pande ko loo xamante ne ba ngeen koy sekk yéen a ko sekkoon ci suuf kenn yëgul ba ngeen koy waxtaanee ba ngeen koy def yéen a ko def ci suuf kenn yëgul kon bu wax amee na ko ne sàmm ngoram téye li nga xamante ne moo di boppam waaye loo xamal nit wax ko ci lu ñaaw loo xamal nit génne ko nekk na loo xamante ne lu bon la lu ñaaw la